yéen a kaay yeeg Serigne Saliou Seck dalleen a jàmm daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp a xëy utali péncum ndawi réew ma di assemblée nationale l'observateur ne la ko waral moo di député yi askanu Sénégal faloon te nu bokk ci quatorzième législature bi tey ci altine ji lañ leen di teg ci seenu toogu waaye journal Futurs Médias bi nee na benn toogu bi di toogu ki nar a jiite assemblée nationale di président assemblée nationale jur na coow ndax ku nekk ci gaay yi teg nga ko bët waaye yeewi askan wi ak wàllu Sénégal dañ caa gën a fës ñaari coalition bokkoon ànd ci yi élection bi nar na leen a tàqale ndax waa wàllu Sénégal ak ak PDS nee nañu Lamine Thiam mooy nekk seen candidat te lépp président Abdoulaye Wade moo nekk ca gannaaw waa Yewwi ñoom it pëccëxoo am ci seen biir ndax Ahmed Aïdara nee na mbër lay doon ci bile poste maire bu Dakar di Barthélémy Dias moom it ne waa Yewwi askan wi moom la ñu tànn tax journal bi jàpp ne bii poste moo nar a wane xalu sa luy ndaw yi ci biir mbooy gi waneet daagu jinne yu màggat yi Vox Populi ne lu ci man di am daala xel ñaar am na ci diggante Yewwi wàllu ak bennoo ci kan moo nar a jiite pencum ndaw réew ma di assemblée nationale su su ànd dëgg ci coalition yeewi askan wi ak wàllu Sénégal te Benno Bokk Yaakaar moom lépp la njiitu réew mi di président Macky Sall tëj ndax kenn xamul fan lay aw ak kan la tànn direct news mel ni ko naan ah kay yéenekaay bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war ko gëm moo di ne waa Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba lan tànn ngir mu nekk président assemblée nationale Mariama Sarr nar a nekk première vice présidente Oumar Youm nar a doon président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar les éco ne Benno Bokk Yaakaar kay lalu nan ba tànn kan lan nar a teg ci toogu gi waaye ba fekkee naka intercoalition yeewi ak pëccëxoo ak réeroo moo am ci seen biir ndax wàllu Lamine Thiam lan tànn yeewi ñoom réeroo am ci seen biir Barthélemy Dias di maire bu dakaar ne moom lañ tànn Ahmed Aïdara moom it bokk ci yeewi askan wi ne moom lañ ñoom ñaar ñëpp bokk ci yeewi askan wi lii tax su su aane pëccëxoo am na ci yeewi le mandaane yeewi ak wàllu bu tasee ñett ñi ñoo ko tas muy Barthélemy Dias Ahmed dara ak Lamine Thiam le quotidien mel ni ku naan àndu politique daal waxaale la wala waxtaan ba juboo te yeewi ak wàllu waxaale nan waaye ci seen waxtaan wi juboo amu ci lii moom li nu jàpp moo di Barthélemy Diaz la waa yeewi askan wi tànn benn bokk yaakaar ñoom Aminata Touré la nu tànn Ahmed Aïdara moom it nekk ca geneen wet ga ne du bàyyi tey ëllëg waxi nopp Yankhoba Diattara ci journal l'info yàkk na fa luy tàkk te du fay Ahmed Aïdara ak Bougane Gueye Dany ministre bi yore économie numérique ak télécommunication ne Ahmed Aïdara xamul boppam te nag kuy mbokkam li nga ko war a wax moo di ne cuuc day xam lekkam bu dee Bougane Gueye Dany nag Yankhoba Diattara ne kuy war a fekk nga sangu ba set mu ne dafa war a jox cër député yi nu fal yees ñëpp di ko waxtaane moo di màggalu ko sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul taxit daanaka yéen kaay yu ñu xëyandool ñoom ñëpp riir utali Touba l'observateur ca la bokk journal Uri 15 angle corniche bi ne njiitu réew mi di président Macky Sall gaaw bi ñu weesu moo ngi woon fii ci dëkk bu sell bi andi fi ab ziaram xalif général des mourides di sëriñ ba Basiru Mbàkke itam daal di koy dalal tatagal ko ba noppeete waxtaan ak moom le soleil national ne al Muntaxa kay dafa delloo njukkal Macky Sall sursu aane moom Macky Sall li mu def ci dëkk bu sell bi di Touba ci investissement moo bari tax yéenekaay bi jàppe ko investissement double XL bés bi la journée moo taxit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñaanal na ko moom Macky Sall président Macky Sall ci biir journal bi ne li ko war rekk la def tey nag liggéey bi muy amal ci tuuba du ca dellu gannaaw lu toll ni tarfatal ay nii waaye nag Macky Sall nee na waaw góor day tax góor mën a yokk ak njàmbaar teem ci Les ko ñu fekkaat ko fa moom Macky Sall muy kitaabu ci kanam xalif bi ne li mu bëgg ci réew mi muy jiit muy Sénégal moo di jàmm ji fi am sax fi ba faaw tey buy dem bàyyee ko ci jàmm ak naataange L'As Bassirou Mbacke nee na Macky Sall def na lépp li ko war ci Touba Macky Sall itam seedeel ko ni li ko war ci dëkk bi rek la def te it du dellu gannaaw benn yoon ci li muy liggéeyal Serigne Touba ndax moom wareef la ko jàppee tribune ne kaay ne Macky Sall naam ne élection yu ñëw day lajj fii ci Touba terewul mu ni réalisation yi mu def xeeb na ko te dina ko yokk gaay yi bëggoon a yokk ba Barcelone teg nañ leen loxo libération yéen kaay moo ko wax mu ne li nu duppee Barça wala Barsaq dellusiwaat na journal bi ne fële ca waaxu jifir teg nañ fa loxo dajale woon ay waxambaane ngir yóbbu leen Barcelone doon leen fayeeku ci diggante ñeen fukki junni jàpp téeméeri junni. Ndayan légos International NCA Assurance TDST tuba Darou Salam Karo.